ndax li lay félicité moy réussir nga ko yag na nga koy muñ on ko wax na ko barki dem jàmbatoo joyo bis bi ñew na tay nit ñi ñew leen en masse lay ci am nak suñu borom gis nga dogal nako ci tay nan nga jàngati situation jangatuma ko nenn lu dul sante yalla alhamdulilahi rabbil alamin lay wax lima war def nako duma tit duma ragal duma tapet ta gor la ci dekk bi la dekk tekki fi te di fi def teranga fu neex lay dagu bokku ci famille bu baax di noobu li teg ci képp ku fi def sa yëfu baa dool ak sa lay xeebe kooku yow la engagé du dëgg ay millions laa jël fay ko du dëgg organiser def ci coono sonal leen yéen ameel leen ak ameel ko amateur yi ameel ko suma sponsor ameel ko waa diaspora bi ameel ko ñëpp kon man gàcce ngalaama wàcc naa keneen nag koo xam ni yàlla def na ñu yare la neneen ngam men neneen di doxale neneen kooku yow la engagé le res j'ai pas de à dire parce que le dernier mot ne me pas. image soxla na ko ak fi làmb toll jafe-jafe yi. Euh, Cheikh Mouhamed Fadal doon sama sëriñ maamin am na question yoo xam ne duma ko bëgg ñu di ma ko laaj. du dëgg parce que man damay tàng. non bul tàng dama lay wax non dama ni du question du ma tàng man nit laa. lii dafa neexul dafa naqari mais boo ma nee ay lii ndax làmb soxlaw na ko yow yaam a gën a xam ni image yu mel nii mbindeef soxlaw ko di ko gis parce que dañoo yor njaboot gis nga doomu aadama bu ñu demee ba jël ci ay nit ci 17 millions sénégalais nommé leen defe naa ni leneen lañ doon xaar mais du li ñu image yu ñu gis tey. lépp xam ne ñàkk teggin lépp loolu mais. Euh, nañu des ak seen ñàkk teggin ak ñàkk ngor dama ni tu me dis que ni Assane Waalo xol laay waxee mais man nit laa damay am lu ma naqari damay sant yàlla ba ma nit ñëpp xamee mais ku xam Pape Abdou Fall xam ko bu baax dee moo ma gënal dund. waaye gàcce ngalaama mais sama yoon newu man du ma juge ah. du ma àttekat du ma police du ma gendarmerie. du ma CNG li ma war mooy wàccoo naag ñoom wàccoo naag amateurs yi. wàccoo naa ak journalistes yi wàccoo naag téléspectateurs yi lamb ji di woon direct. amee loo kenn ak dama ko def direct à la dernière minute pour bëgg lu neex Sénégal hmm. mais gàcce laa mujjee. bañu ma dalee jiin booba tuuti laa booba su ma dalee damay jooy waaye léegi nu ma dalit damay xeeb nay bari te nay baree bari